Euh, Sonko wax ji tey na ànd na ak yar euh, wante mim réew euh, ku ko bëgg a jiite faaw nga pànk Euh, loolu maa ngi ko for léegi ci Facebook bi euh, xam naa dina ci wax tuuti euh, dafa wuuteeg sunu invité yi ñu mujjee recevoir waaye ku ne ak ni nga mel te plateau bi lee kilifa yëpp fii la ñuy ndogusee ci weeru koor gi am na ñeneen ñoo xamante ni itam ñu ngi leen di xaar ku ci ne ak sa couleur voilà donc dama bëggoon ñu jàll ci livre bi njëkk a permettre Chérif Dia mi nga xam ne këram la toog di ko lire peut-être moo ñu ëpp temps ak concentration ci livre bi pétrole gaz au Sénégal ci li nga jot a lire rek très rapidement euh, euh, lan ngay euh, njëkk laaj ki nga xam ne ni mooy Ousmane Sonko. <laughs> dafa mel ni peral na ma de <laughs> xaar bee yàgg <laughs> diggante ndogoog seetaan télé dafa àndul euh, Adja jàlloo euh, Diallo euh, ñu bàyyi la nga enchaîné ci livre bi jibi itam mu ngi may xool xooluk damaa bëggoon a maye benn way loolu itam du ko yàq de xanaa ah comme information la ak divertissement mën na nekk voilà kon kon kon kon ñu déglu ñu déglu jibi ndax loolu Ousmane mooy couleuru ah. jotaay bi li nga xamante ni mooy premier talk show fii ci Sénégal ñu tuddee ko quartier général kon jibi ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi yow ak euh, maman chérie mawla bi suy na bi mama nebe tara julu fula bi suy na neba fula fula ma talgeda ye nani ne alu te fila nani ne alude futa filana ni ɲɛ o taligɛda di mamare aysatu jawu la foronto ñuma bala nan kama duwa jaabi mama chéri daga taal wode wolola muntaga tali la muntaga tali wolola bashir tali la wode wolola sogomari bashiru la foluga taara julu fɔ malihɛri ni malimaladɔ pulo ɲamata ka cɛ namu mama mama naa yàlla rek kanam bu la jël yàlla alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin alaw Cheikh Oumar de kumana don la folikɛla nalu sɔnna ma ne b'a fɛ ka yɔrɔ walawala minnu bɛ jeliya kuma kɔrɔ dɔn taara tɛ fɔla mɔgɔw ma ko sanu taara tɛ fɔla mɔgɔw ma koori b'i mama seri sogomari de ko k'a fa caman caman bɛ futa barabaɲɔgɔn caman tɛ futa ɲɔ fo muso wolocogo tɛ kelen ye musolu minnu cogo tɛ kelen ye sogomari futiw tal kɔda adama ayisa ɲɔ fo fula ma n'i ye fila kelen mama i tɛ futa n'i ye fila kelen tɛ taa bundu n'i ye fila kelen tɛ taa wetala taara juluw fɛlɛ disidi lagare namu namu namu namu jaalima man namu tara julu fele shibu mare shibu marutal ifasafele banyangara kele kuntigi mamare shibu maru dingere kele kuntigi mamare shibu maru shibu maru ibe makede makele kiwa ayemanu manu kele ke jaga kele diara fuuta kalee karaa addi ari be maalax daga tali mamaree segu waaru daga tali walala mamadu lela ode walala mujumena ngode wolola bashiru la bashiru wolola segumaru la tal torodo talo segumaru aladibe jalilu la diya dondon la kam sak jallo Pape Cheikh Diallo Diallo Diakité Sidibé ni Sangaré lii moo tudd dara lii moo tudd dara tagara kaa te segi kaa bɛ taga kɛlɛ kɛ ko n'a ye kɛlɛ kɛ k'ale bɛna silamɛyalen de tuubi minnu b'a ala ye k'a to ala ye k'a fɔ ala ye Sebani Mamadu Ya Rasululahi Mamadu mina mamadu arfa mamadu maka mamadu mamadu tɔgɔ gwara mɔgɔ min ye n'u ko ashadu an la ilaha wa sharika lahu rasululahi n'i ma taga misiri la i tɛ kɛ salibaga ye jango subaga n y'o de fɔ mama siri mamadu ka di n ye dɛ. Mamadou Kadi Nye dutu managoyamogonde ibo suru utigiti sunnaye imahe mametara iji demisheniyala mamadu kadiye jalitibi dara iji demisheniyala jo sababu mama seri kandulayi kaba kaba mente tente nate bunte mande ngamorila kaba papsek jalo mandama bëgg mamadou gama sopp seydina mamadara surulayi mi na ma Maodo dama ko man jibi dara me wallahi talaay dem naa ziyaare ma Maodo Rasulullaay si xale ku luxul sababu doomu Moustapha Kaba mu ngi tudd El Sidiki Kaba Jandulayi Kaba Kaba mete tente naate bunte maninga morila Kaba soo demee Tambacounda oriental kooku sama tudd la Babsel Diallo lii mu taa اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد كيرا لا جما كيرا لا جما جما جما كيرا لا جما جما جما جما جما محمد تغمن بويا مغومي مغسنولي سريكي كبا جنولي كبا waagaan waagaan urus waagaan waagaan kuma sanjaan séeréer bi lay way bam sa jàllo moo jugu mama chéri moo yóbbu mama chéri bayti laay Mama Chérie pare gu ñëw yow lii nag euh, avant goût la ci euh, li internet bi posé question sànq euh, xam naa tontu bi dinañ ko am parce que bu ñu waree bu soobee yàlla ci la Djiby Dramé woote guddeem gu mag goog nga xamee ni at bu jot daf koy amal fii ci Sénégal muy nuit di Bazin daañu waxtaan ci dat bi bu cakanamee tuuti waaye taara bi itam képp koo xam ne soppee Cheikh Oumar taal nga defe naa xam nga ko ndax tam mag ñi seeni waxtaan nii rekk la yàgg demee Euh, moo tax it ñun itam euh, euh, bu ñu nekkee weeru koor ci guddi gi ci quartier général nga xam ni mooy émission wu sénégalais yëpp faaw rek ñu ñambaas ci suñu ndaanaan yi ñu féexal suñuy xol ci guddi gi bu ko defee nag dañuy jàll ci li ñu décidé woon waxtaane léegi nii ak Ousmane Sonko suñu invité tey muy livre bi nga xam ni moom la ñuy présenté daanaka lu ci ëpp kon Adja Binta ñu bàyyi la encore ak sunu gan gi sànq Mamadou Ndiaye am na lu am solo lu mu laaj ci ci euh, livre bi euh, mën nañu ñëw. ci kaw mooy pourquoi choix choix France bi surtout ni mu ko nim mu ko ni mu ko doxalee maanaam dafa dafa. dafa njëkk a génne xibaar bi dafa njëkk a génne xibaar bi ne France lay lay lay joxe lay lay publier livre am bi uh-huh. euh, mais dafay éviter waa DST uh-huh. DST mooy ñi nga xam ne ñooy wàll ñi contrôler ñi nga xam ne lépp lu wàll bind la bu waree dugg si fii ci réew bi uh-huh. ñu jàpp ni loolu euh, dañoo dañoo interdire livre bi mu bàyyi euh, information boobu jàll ñëpp jàpp ni livre bi dañ ko interdire mu bàyyi ba ci veille bi mi doo ko préciser ni que livre bi interdire ñu ko patt jooju lu tax mu war a ko te moom dañ ko dafa réputé nekk nit ki nga xamante nit ku jub jub di nga xam dafa fas yéene changer politique gu Sénégal. merci euh, defe naa balaa may wax ci lool sax am na ko fi wax léegi ci benn question ne. Euh, defe naa waxu pànk la wax ak yu mel noonu. waaw dama ci Facebook bi laa ko gis léegi ak. Euh, <laughs> Soda Gawane Kassé. voilà Soda Kassé moo ko ah. def hashtag ñu ngi koy nuyu d' mm. mu wax ni. dëgg la dëgg la am na yaram la tey politique bi surtout politique gu réew mi il faut nga pànk. loolu la wax. waa xam naa xam naa dafa tombeek tey euh, coono gi rek. ndax <laughs> déedéet mais xam nga ñu ngi si ñaari fan yoo xam ne nelawuñu daanaka ndax mm-hmm. démb dañoo yendu. Mm-hmm. fanaan pour déposer liste yi. Mm-hmm. enchaîner tey. peut-être coono ko ñu jàpp rek. mais mais mais Sénégal moom de toute façon euh, pànk moom baaxul sax dëgg na <laughs> <laughs> ci kilifa moom. te te li ñuy seet si nit. Mm. ndax bu ñu fàtte ni ki fi nekk bokk na ci liñ ko. li ko yenn sénégalais tànne woon mooy dafa yaru dafa tey dafa dal mhm. doo xam selon les personnes ku nekk dafa am lu muy wut ci nit mhm. mais li ci am solo rek mooy di wax li nga war a wax euh, wax ko ak fulla mais wax ko correctement euh, nit ñi mun a comprendre sa message mhm. li ci des euh, nit ku nekk ak style ak ni mu mel man ñi ma gën a jege nee nañu damaa xaw a bëri que damaa bëri lu may <laughs> d'ailleurs maa ngi dégg nga ko wax sa introduction sax mais mais mais li am solo rek parce que ne peut pas faire l'unanimité mhm. c'est de rester dans la correction mhm. te soo amee looy wax nga wax ko ci fulla ak fayda bon euh, question bi euh, sëñ bi laaj sànq mhm. euh, j'ai presque envie de retourner ko question bi parce que ça va nous plonger directement d'ailleurs ci débat bi fi gars yi suscité avec la presse man dem naa sax ba ne est-ce que c'est pas volontairement fait pour orienter le ba sur autre chose et non pas li nga xam ne moo newoon l'essentiel muy téere bi ñu bind mm-hmm. wax ci ci lu am solo ci l'avenir de pays muy la ressource naturelle mm-hmm. parce que euh, da est-ce que mus ngaa dégg Ousmane Sonko mu def déclaration wala mu bind walla ñu interviewé ko mu ne livre bi interdit nañ ko musul am bañ koy wax sax man maa nga Paris ça a été mais man musuma toog ak kenn benn journaliste Sénégal musuma toog moom ne ko livre bi interdit nañ ko déet non bu ma laissé bu ma laissé terminer non Facebook nga taal di rectifier tout de suite mais da xaar ba ñu entretenir la débat ba pare nga soog a rectifier xam nga lu ñuy rectifier tu as pris du temps quand loo def ngay rectifier lu keneen def doo ko rectifier donc donc ban jour la débat bi am vendredi la am vendredi néew moor Sénégal vendredi. mais fi nekk am na internet am nga sa page Facebook déglu déglu rek soxna si ma terminé. dama lay wax boo wax la lan moo ciy photo presse jeudi laa quitté Sénégal conditions yi ma nekkoon fu ma demoon mënoo ko xam yow ci sama gannaaw la njëkk a andi débat wu interdiction bi biñ ko posé. télé bii par exemple TFM def na ci documenté benn document bu ndaw ci journal pourtant bi ñuy préparé dossier bi woo nañu sama benn collaborateur Bassirou Diomaye Faye ne ko ah ñun de dañoo dégg lii mu ne loolu amagul parce que déposé gu ñu DST bay egg foofu keneen ak keneen teewul guddi gi génne nañu benn document interroger un ministre ak éditeur ñu ne ñu def un long ku nekk def benn ay développement sur une interdiction mais sooy génnee information du ma la jàngal sa métier kuy wax ci interdiction livre ñaari source nga war a am benn mooy ki bind livre bi ñaar mooy DST ñooñu nga war a woo DST le lendemain bi mu defee communiqué lu mu lu mu wax dafa ne jotaguñu fi benn notification benn livre bu tudd noonu mm. ba pare ne ñoo ngi ñaan nag kuy waxati information yu mel nii na nga ñëw leerlu si ñun balaa ngay wax ça veut dire que même ce minimum defuñu ko kon noo mu ne askanale Ousmane ko wax joo xam ne yéegu ko tinu ko ba pare ne ko mu rectifier <clears throat> premier faute bi foofu la amee te teewul li ma ma répété li ma wax fii bi ñu jëlee attache samay collaborateur nee nañ leen eggaguñu foofu ban besoin la ñu amoon malgré tout génne information tasaare ko ne livre bi Euh, dañ ko interdire le lendemain DSC bind ñenn ñi gaawantu ci Facebook ne waa ji waxoon nañ leen du waxkatu dëgg gis nga weddi nañ ko. mais tekkaaral bi la ñu wax. donc tekkaaral ji nga defoon noonu. ci temps boobu noonu yëpp est-ce que euh, may sa livre bi buzz aussi. may ko buzz wala su dee suba ba ci ngoon. xam nga livre bi soxlawuloon buzz. ndax biñ ko annoncé rek. def na def na boppam ba pare. <laughs> du du ko du du interdiction ak autorisation moo koy def buzz. Mm-hmm. donc partant man li may wax rek mooy. munoo suba su ne nga ne lu ñu loo dégg ci ñu wax ko ci yow le matin ngoon sa yaa nga ci presse bi mm. ca ngay dëkk mais dafa am lu ñu war a doxale amoon mon à yenn information yi parce que ñun nu sommes ouverts ku ñu woo laaj ñu dinañ la wax li am euh, RFM guddi gi biñ ma woowee Makumba woo ma de Paris dama daf si saa si laa ko jël mu ne ma damaa dégg léegi lii ma ne ko léegi lii amut le lendemain mu teg mu teg ko édition ngoon guddi. le lendemain mu teg ko édition du matin. donc ay jaako yi da nga bëggoon a bës ak nangam nangam je crois qu'il faut situer d'abord les responsabilités su doon man maa génn ne dañoo interdire livre bi wala yu demee noonu on peut parler mais su dee kenn ku jóg génne sa information ma daw ci gannaaw. Hmm. defe naa ci loolu laay dëkk. léegi moom dafa wax li tax Paris. loolu it dégg naa ci version yu bëri. wax nañ ci yu euh, mais ba ci sax euh, éditeur u Sénégal yi woo nañ ma ñu waxtaan si kenn du génne benn interview wala benn déclaration boo xam ne man def naa ko ne lii moo tax ma dem ma def euh, livre bi Paris bi ma ñibbisee la ma journaliste interrogé ma doog wax ak moom ci loolu bi ma ciy wax mooy lu simple la. Mm-hmm. on avait deux défis. premier défi mooy bind livre bi ci diir bu gàtt parce que dama bëggoon mu collecte l'actualité mhm. donc un mois laa tëju mhm. guddi gu bind deuxième défi bi mooy bu ñu ko bindee ba pare mhm. binduñu ko pour mu nekk ci tiroir dama koo bind pour mu génn pour ñu publier ko mosuma wax ni damaa wër éditeur Sénégal yëpp parce que dégg naa am na lu mat cinquante éditeurs mais am na quelques éditeurs yu ma jox manuscrit bi bañ ko liiree ba pare dañ ma ne suñu sañoon euh, nga xool feneen wala ñu ñu tegtal la ay nit sax bitim réew parce que genre livre yi soo ko suñu jëlee responsabilité génne ko xam nga état bi ni muy doxee mën na am ñun sax la ñuy bundaxatal ma jàpp ni su dee loolu mooy voie bu gën a gaaw pour livre bi génn suñ ma ne woon Chine sax mu leer ma ni su ma fa demee ñu génne ko ma dem Chine mm. parce que bindu ko pour bañ koo génne mm. mënoon naa continuer di seet éditeur par éditeur peut-être dinaa def deux ans di wër mais ñu ma booleeg éditeur feneen mu ne envoyé le manuscrit bi ñu envoyé mu xool ne je suis ma ne ko génneel parce que loolu moo ne woon sama objectif loolu moo ne woon les deux defi évidemment léegi ça induit un troisième défi mooy génn nañ ko bitim réew man bëgg naa réew euh, ñu ngi koy jënd bitim réew mais bëgg naa livre bi des milliers de sénégalais ñu ngi koy réclamer ma fexe ba mu ñëw fii bi ma ñibbisee déposé naa DST parce que nee nañ loolu mooy procédure bi gisuma loi laaj naa éditeurs yi ñu ne ma amuñu loi bi mais nee nañu il faut nga def ko ma jël ñetti exemplaire bind déposé DST boobu ba léegi dem naa fa ñaari yoon nee nañ ma ñu ngi koy liir ma delluwaat commissaire na ma liir naa ko jox naa samay supérieur ñu ngi xaar mm-hmm. donc ñu ngi toog di xaar suñ ko autorisé livre bi sera disponible dans les rayons au Sénégal suñ ko autorisé wulit 21e siècle censuré fi lay métti déjà am na ñu craqué livre bi am na ñu ko craqué parce que mi ngi en ligne vente en ligne bi mm-hmm. fexe ba craqué code bi te léegi mi ngi circulé WhatsApp man mi toog naa ñu envoyé ma livre bi WhatsApp donc alors man ci ci titre bi laa bëggoon ñëw lan moo tax nga tuddee ko pétrole et gaz chronique d'une spoliation ba pare bu ñu parcourir quelques pages gis nañ ko wax nga ci géologie wax nga ci droit économie dem nga sax bay def ay propositions pour naka la ñu mën a gérer euh, ressources naturelles lu dëkk bi ba ñëpp mun ci jëriñu euh, loolu bi nga koy def euh, sa sa xam-xamu bopp boo am ci domaine yooyu yëpp la wala da nga def recherche d'investigation. ak euh, ñaata temps la la jëlal ci loo sukkandiku ba génnee livre bi. waaw bon euh, livre moom soo koy bind da nga am toujours loo yor am looy mottali. surtout nag travail bu mel nii dafa laaj nga gëstu parce que loo ciy bind rek mun na wëlbatiku donc du lu ñuy bind à la légère du roma roman su ma doon bind roman je crée mes personnages euh, kii mooy aadama ki mooy Pape Cheikh ku nekk nga jox ko rôle mais kii. c'est c'est du réel donc loo ciy bind rek da nga mën a ne ci tel document laa sukkandiku ci tel décret tel arrêté tel contrat tel et ça dafa laaj tuuti liggéey am na nag lu ñu ci xamoon ndax ci suñu cadre liggéey am nañu chance su doon def profession bu transversale nga xam ne euh, da ngay liggéey code yëpp léeg-léeg ñu jox la société minière nga war koo vérifier il faut nga def recherche léeg ñu jox la banque nga war koo vérifier léeg ñu jox la assurance ce te permet nga ubbi tuuti horizon bi donc ci wàllu pétrole am na lu ñu ci xamoon mais am na lu bëri loo xam ne dañ ko cay yokk ci suñuy gëstu bopp titre bi nag moom su ma nee chronique d'une spoliation dama bëggoon ci ni ma koy élaborer ma def démonstration dama bëggoon livre doon un livre ba nga xam ne ku ci bëgg a weddi da nga mën naan lii nga wax ci page sàngam lii nga wax ci ci ci tel aspect wala ci responsabilité diw amul te document bu koy wane mu ngi nii moo tax ma ne naa ko def sous forme de chronique jël affaire bi fu mu démarré del indi ko ba fu mu jeexee mais soo bindee livre bu mel nii am na ko doon wax léegi euh, dénonciation ou révélation euh, livre bi rek wane na ni loolu du du lu ñu tax a jóg parce que son révélation rek livre bi deuxième partie bi rek laa doon bind livre bi trois parties la première partie bi dama rappeler depuis 1952 ba 2016 l'histoire de la prospection pétrolière lañ fi defagum yépp ak fan la ñu gis pétrole fan lañ ko gisoon 1960 fan lañ ko gisoon en 98 fan lañ ko gisoon en telle date loolu mooy première parti bi ma yokk ko première parti bi toujours rappeler lan mooy cadre juridique bi mooy euh, code pétrolier ak son décret d'application ak le code général des impôts pour les aspects fiscaux naka la ñu wax ni noonu la ñu war a gérer pétrole bi ma doog a ñëw nag deuxième partie bi boo defee loolu ba pare mun nga jël li fi xew nga natt kook li yoon wax gis wane fan la différence am fan la njuumte am loolu mooy deuxième partie bi mais munoon naa yem foofu ba tey parce que partie boobu mooy partie dénonciation mais troisième partie bi dama def des propositions premier type de proposition mooy xeex bi warul yem fii parce que ñàkkaguñu pétrole bi ma proposer des actions citoyennes yoo xam ne lu ñu war a def la te tey soo gisee lancé nañu le collectif euh, citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers déposé nañu ay demande d'ouverture d'enquête euh, États-Unis département de la justice secretariat au commerce déposé nañ ko Grande-Bretagne man mi di wax ak yow rek tey recevoir nañ ma ambassade des États-Unis procureur nga fi woon chargé des questions politiques waxtaan nañu pendant plus d'une heure de temps ci questions yu mel noonu. Mhm. parce que dañuy xeex duñ ko bàyyee noonu. ma def proposition ci loola ba collectif boobu Alioune Gueye mi nekk États-Unis moo koy coordonné mais ñu bëri bokk nañ ci fii ci ay citoyens acteur politiques te soo gisee ñenn ñi wala ki jiite réew mi naan nañu dem Platinum Marché de porter plainte xam nga dafa ne du musa wax ci pétrole bi. daaw bi coow li bëree son porte-parole dafa ne bu n'entendrez jamais le président sur ces débats euh, ces procès de mauvaise intention ou comme ça léegi ñoo ngi ciy wax waaye tàng xol lañ ciy waxee nun du ñu dem planète Mars parce que suñu pétrole newul Mars du ñu dem feneen ak feneen fii la nekk fii lañ koy xeexe donc loolu ay propositions yu ma def la teg ci des proposition nag techniques ne pétrole bi suñu buggee mu njëriñ réew mi am na des standards mondiaux am na ñu seen pétrole jëriñ soo demee Norvège wala les pays scandinaves ba ci li li li li président bolivien bi def temps yi am na ñu yor pétrole te jëriñu leen dara université bu baax sax amuñu ko donc naka la ñu war a def ba pétrole bi njëriñ réew mi jëriñ ko ci koom-koom ci alal mooy ci wàllu fiscalité ak ci wàllu partage de production naka la ñu def ba mu jëriñ génération yi fi nekk ak yiy ñëw naka la ñuy def ba bu mu doon lorange mooy question environnementale yi nga xam ne pour encadrer ko donc su doon dañoo buggoon yem rek ci euh, ni ko nit ñi di waxee dañuy dénoncer rek yooyu duñ ci fekk dañ naan lii moo xew ci pétrole bi lii la ci nguuru Macky Sall def pare nañ ci donc looloo tax ñu jël tiitre boobu et puisque li ñu démontré mooy ni ñu yoree pétrole bi yàq na ay milliards yu bëri pour Sénégal évidemment moo tax spoliation bi tegu ci parce que lu daroon dem ci Sénégal rek te jóge fi. Mhm. ci anam gudul yoon dañu spolier. Mhm. voilà Chérif Dia. Chérif euh, ba léegi yaa ngi ci téléphone bi euh, euh, yaa ngi lire livre bi. waaw ñu ñëw rek ci waaw fi mu fi mu terminé noonu am na solo trop moo taxoon moo bëggoon ko laaj parce que gis naa sax ci premier partie livre bi Pape. Mhm. moom fàttali na ko ñëw daal di wax rek li nga xamante ni mooy carte géologique du Sénégal ak tamit historique bi. buñ buñ jàngatee livre bi kon jàpp ni. moom presque Sénégal euh, laataa ñu am indépendance sax doon nañ gëstu lu jëm ci wàllu pétrole ba amoon sax am loo xam ne jëm nañ ko ci mhm. a mooy lan jàpp ni kon moom moo wax ay découverte pétrole boobu jur coow li lan lan moo mhm. mooy aussi gis nañ mu daal mooy caractéristique société yi nga xamante mooy société tubaab yi bi bi explorer pétrole bi. mooy ay service corporation ak yooyu moom jàpp na caractérisé gis naa mu wax ne li nga xamante ne mooy seen faiblesse jëm rek ci ay circonstance ak yu ni mel maanaam amul doole joo xamante ni xëy na ak société yu mag yi meññu ko ak beneen bi nga xamante ni mooy société yoo xamante ni ci paradis fiscaux yi lañ nekk kon bu ma jàppee li mu wax mooy Sénégal day jëflanteeg réew yi nga xam société yi nga xamante ni daal jugoon donc ban conséquence moom la jàpp ni kon moom la war a tiire ci lëkkaloo boobu gis naa également ci famille présidentielle bi tudd na leen ci livre bi daal di leen di méngóog sax livre yi nga xamante ne film yi nga xamante ne bi ñuy ndaw. daanañ ko seetaan muy Jalaas ak dynastie donc moom méngale na sax famille présidentielle bi ak li nga xamante ne mooy famille Jalaas ak dynastie mooy famille Edwin Tang ak Carlin Carlin yi nga xamante ni. ñoom GR defe hmm. moo tax ma wax loolu. fin yu mu def rek naa tamit mu daal di def ay ay suggestion hmm. daal di jàpp ni daal am na daal dañoo war a diriger ay actions judiciaires contre ma koy laaj boobu yan personnalité la la jàpp ni kon war na leen topp ci wàllu yoon ak tamit li nga xamante ne mooy wax na ko tam tamit mooy rek Sénégal président am na fi doole doole boo xamante ne mënoon koo topp ci wàllu yoon jëm ci wàllu haute trahison ak yu ni mel moom sax wax na ko ba invoqué article cent un bu constitution beeg yu ni mel est-ce que loolu euh, du su nature régime politique Sénégal moom moo tax xëy na président bu dee juum na ci yorin wala nangam mënuñ koo topp. Mhm. ma koy laaj ci question yooyu. beneen bi nag mooy bon jotewu dara ak livre bi comme maa ngi tàggoog yéen. Mhm. mooy moom du c'est vrai que rajee noonu ko ak yu ni mel. lan lan lay dundee maintenant parce que des fois Sénégal danaan politiciens yi amul métier comme moom euh, inspecteur impôt la woon. te léegi euh, ñu rajo ko ci fonction moom Sonko lan lay dundee. voilà merci beaucoup euh, Chérif kon ñu déglu tontu yi. <laughs> waaw ma commencé ci bu mujj rek. defe naa li nit mën a def ci àdduna dafa bëri benn bëriwaay boo xam ne. Mhm. xanaa yaafus peut-être. Mhm. surtout nag su dee am nga profit yoo xam ne ñi ko soxla bëri na. Mhm. donc ñu ngi sant yàlla ñu ngi def suñu activité maa ngi dégg nga koy tontu sax ndax ubbi naa sama cabinet d'expertise. Mhm. te maa ngi am samay marché. Mhm. Eh, yaa ngi xar matt comme on dit. non xaruma matt damay ah, liggéey d'accord <laughs> sama sama mooy ngay def <laughs> lii di moccaat ah, fële. ok donc ñu ngi ñu ngi liggéey. yor na nag yor na 15 la joxe démb fële. ak li mu nar a campagne yeeg yooyu yëpp euh, ku ku bari bari xaalis la. ci ah, chômeur ci chômeur. xam nga loolu li muy firnde rek campagne dem campagne yi joxe 15 millions. te parti yu ndaw ndaw ñoo bokk ci parti ci coalition bi. denc na de. waaw xam nga lool li muy firnde rek mooy conception bi ñu am ci politique mooy peut-être xaw ma ndax yaa ngi politique ci parti. mooy li ñu considéré mooy mooy ab parti nit a ko moom. Sénégal lool la benn waaye moom parti bi. c'est la seule constante mooy jënd chaise yi mooy fay siège bi. waaw ñun nag ñu parti yooyu. wax dëgg yàlla ñi daje ci parti bi ci ay cadre ay kàngam ay intellectuel ay homme d'affaires lu ñu bëgg def su ku nekk lambee poste ñu def ko. donc man amuñu nekk bitim réew ñëpp a ngi fu ne ñu ngi cotiser. pour parti bi. Uh-huh. donc donc te te non non yooyu yëpp amatul parce que dañu viré dama ne man. Ah. maa ngi sant yàlla. Hmm. ndax li may dundee am naa ko. Uh-huh. kuy jàppale nag jàppaleel projet bi jàppaleel idée bi. Hmm. le parti day def fundraising. ñu ngi sant yàlla sénégalais yi soog a rajee ubbi woon nañu benn compte pour gars yi nekk bitim réew ak réew mi di la ci defal dara waaw ñi ngi doon def ñi ngi def ba tey sax te ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a eh, baax parce que parce que nu munti demee na doon lu lew te dagan rek xam nga fees ak fees ak ñàkk fees dërëm ak un million ak cent million na lew rek te eh, dagan eh, loolu moo am solo donc ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi ñu ngi domaine bii ma bind ñu ngi ciy gañe ay marché y a même pas 20 jours maa ngi ci doon defal ay nit ay formation à Saly mhm. donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax euh, question yi mu laaj nag dafa bëri te yoruma lu ma bindee mhm. mais li mu njëkk a laaj defe naa mi ngi jëm ci pétrole bi mhm. découverte yi ah euh, découverte yi moom yàgg naa am soo gisee sax ma insiste ci parti boobu mooy soo seetee premier ministre daaw bi muy def conférence de presse am dafa mel ni euh, li mu bëggoon gëmloo Sénégal dafa mel ni président Macky Sall dafa dañ ko fal rek mu ñëw ak benn valise pétrole dem na ba ne sax c'est juste en 2015 tombé waral ay gaaf quand le président noonu la ko waxee ci déclaration moo taxoon ma ne nañu fàttali ni Sénégal yàgg nañu gëstu pétrole vers les années 60 découvrir nañ pétrole euh, Casamance Domflor bi mais ñu gisoon ni jamono jooju pétrole bi c'était du pétrole lourd suñ ko exploité woon du rentable noonu noonu ba 98 bi ñuy découvrir gaz de Gadiaga bi nga xam ne Forteza mi ngi koy exploité depuis 2004 ci condition yoo xam ne sénégalais xamuñu ko découverte yi bëri yàgg na te nañu xam ni bassin bi li ñuy wax bassin bi boo commencer ba am ay découverte rek war nga mën a am yaakaar ni parce que même bassin bi la que pétrol gu bëree ngi fi wala gaz gu bëree ngi fi donc processus la buy continuer peut-être chaque d'ici dix ans dinañu gisaat lu ëpp loolu ainsi de suite deuxième question bi mu posé mooy euh, su ma juumul euh, ci damay wax du ma ko jël chronologiquement li ñëw sama bopp rek. wax ko parce que li mu laaj bëri na effectivement li mu laaj dafa bëri. Euh, te su ma amoon lu ma bindee sax. di jël méngale gi nga méngale famille président peut-être ak. waaw série à l'époque surtout ci affaire richesse ak pétrole ak yooyu. waaw loolu li ma ci wax rek mooy. Euh, li ma bëggoon wax rek mooy famille présidentielle dafa dafa dafa dafa présent trop ci pétrole Sénégal ndax soo seetee euh, boo peeram la ñu nommé PCA wu euh, Petrosen te ñëpp xam nañ ni Petrosen mooy la société nationale du pétrole mooy toppatoo lépp lu jëm ci pétrole ci Sénégal te boo bi ñuy wax Omer moom la nommé foofu muy PCA. Mhm. donc am influence ci décision yi ciy jël. rakk ji. ñëw nekk ci ñu nommé ko administrateur Petrotim ñu koy signal ay décret di ko jox ay bloc muy deuxième aspect moom mi président moom ku mu signalul amoo pétrole Sénégal muy ñetteelu aspect ba ci Cospetrogaz bi mu créé soo seetee ki mu fa teg nee na kilifaam la xaritam la ndax moo ko recruté woon Petrosen loolu nag su amee mënuñu bañ a parce que ni ñi ni ñu doon gérer ci film yooyu doon gérer ay pétrole famille benn famille yor pétrole yor léegi loolu laa bëggoon renvoyer mais derrière la symbolique li ma ci bëggoon wax mooy loolu day tiire vers le conflit d'intérêt day tiire vers le trafic d'influence te moo tax mënuñu koo xel munu ko nangu yoon mënu koo nangu soo seetee suñuy loi da ko dàq soo seetee référence yi ñu sukkandiku ñun muy le FCPA aux États-Unis muy Bribery Act bi en Grande-Bretagne muy convention euh, des Nations Unies contre la corruption transfrontalière nga xam ne signé signé nañ ko ñun euh, ratifié ko yooyu yëpp dafa dàq loolu. soo demee bu Amérique bi moo gën a sévère ak bu Grande-Bretagne dañ la ne société américaine buy ñëw traité dans un pays étranger warul traité avec un membre de la famille présidentielle warul traité avec un. membre influent du parti présidentiel warul traité avec un haut fonctionnaire wala quelqu'un qui a un mandat d'élu te yëpp dafa daje ci Aliou Sall il a un mandat d'élu il était fonctionnaire il est proche du président il est dans le parti du président yooyu la ñu bëggoon a metre en exergue parce que loolu moo mën a justifier lu bëri par exemple pourquoi nguuru Ablaye Wade ñëw signe contrat contrat bi jaarul yoon ci diggante bi balaa ñuy signer décret parce que li ñu war a xam ci wàllu pétrole mooy su état du Sénégal signé ak Pape Cheikh contrat. Pape Cheikh amagul teen amagul bloc. balaa muy am bloc président signé décret d'approbation. décret d'approbation mooy joxe li ñuy wax laa date defe donc nguuru Ablaye Wade dafa signe woon contrat. jotul def décret bi alternance ñëw. bi ñu ñëwee amoon na ay société yu doon compétir ci même bloc yi ñu def ay réclamations. yéet nañ ko IGE ba IGE sax def rapport ne ni ñu joxee Petrotim dafa violer code pétrolier. mais lan moo tax malgré tout ça président Macky sal dem signé contrat kii décret bi te diggante bi soo seetee diggante boobu ak bi ñuy signé décret bi lenn rek moo fi bees mooy ci diggante bi ñoom dem nañ jël Alioune sal faxas ko nommé ko administrateur ne ko créer société bi. loolu rek a fi bees ñu jël malgré les violations flagrantes yi am ci code bi te yëpp feeñal naa ko fii dem signer décret bi pour joxe pétrole bi. Mhm. moo tax genre lien yooyu soppuñu ko soo jug soo ñëwee ci suñu statut général la fonction publique ak ci code pénal da ko dàq. Mhm. nga dem ci loi internationale yi wala ci convention internationale yi da ko dàq. moo tax pour amuser un peu ma def référence ndax bi ñuy nekk ndaw dañ daan dégg Dallas Dallas dañ ko daan wax na itam ci ñi nga ne war nañ leen auditer je pense euh, euh, wax na ci moom Chérif ah waaw non li ñu wax dañu dañu wax ni li xew mhm. il faut ñu situer kenn ku ne li nga ci def mhm, moo tax ma jël autorité yi ci intervenir yëpp mhm. soo jëlee ku mel ni ministre en charge de l'énergie de l'époque muy Aly Ngouille Ndiaye moom moo ci ëpp responsabilité ñëpp affaire yu garaaw la def parce que décret bi tax ñu signé moom moo def rapport de présentation bi te élément yi mu bind ci rapport de présentation bi amut donc yow nga bind ne pétrotime société asiatique bu mag a mag la boo xam ne euh, euh, euh, ay groupe de personnes ñoo ko moom te booba jamono pétrotime du société bu mag Petrotim benn nit rekk ko moom du groupe de personnes Petrotim amul référence ci pétrole parce que l'article 8 di code dafa ne balaa ngay jox nit pétrole il faut mu justifier ñaar mooy lan mooy ses capacité financière parce que pétrole du affaire cent franc du affaire u cent millions. xaalisam dafa bëri. donc ki ko ki ñëw ne jox leen ma benn bloc il faut nga indi ne man am naa capacité financière yi banque sangam moo may ngémb wala am naa société mère bu am doole bu may jox xaalis. Hmm. ñaareel bi il faut mu justifier capacité technique mooy il faut mu ne mus naa liggéey ci pétrole dëkku sàngam dëkku sàngam def naa forage fii découvrir naa pétrole fii exploité naa fële. Petrotim remplir loon benn ci condition yooyu. Mhm. dañ ko signal contra contrat ba pare. Mhm. le 17. Mhm. le 19 lay doog a créer société bi. donc dañ koo njëkk jox pétrole muy doog a dem créer société muy dem créer société donc yooyu yëpp yu garaaw la yoo xam ne am na ah. ci pétrole bi. Ah, ah, moo tax ci yeneen développement yi. bi ma waxee par exemple ci président de la république li ma bëggoon wax mooy il faut ñu profitoo ci réfléchir ci suñu système institutionnel bi parce que le président de la république c'est le premier responsable du pays mais suñu constitution da ko irresponsabiliser mooy président de la république mën na def lu ko neex dara du ko ci fekk sauf haute trahison te amul benn loi benn doctrine benn jurisprudence bu lay définiral c'est quoi la haute trahison donc il faut que à côté de la responsabilité pénal du président de la République nga xam ne c'est une responsabilité difficile à mettre en œuvre ñu instaurer la responsabilité politique loolu mooy permettre soo gisee euh, brésilien yi daaneel Dilma wala sud coréen yi temps yi daaneel seen président mooy su dee dañu dafa am njombe yu président def peuple bi mun na jóg manifester ñu enclencher une procédure de destitution loolu France bi ñu doon toppandoo sax 2007 la réformer sa constitution dugal léegi la procédure de destitution mmh. donc il faut que au-delà mmh. parce que Sénégal la wax rek ñu ne immunité du président mais président nit la mmh. est-ce que su doon fii rey nit day am immunité donc il faut que aujourd'hui suñuy suñu juridiction suñu législation constitutionnelle évoluée l'article 101 notamment ba président bi au-delà de la responsabilité pénale nga xam ne pour mettre ko en œuvre c'est des procédures spéciales c'est une c'est un délit spécial muy haute trahison c'est des procédures spéciales mooy une juridiction spéciale avec des modes de saisine également spéciaux il faut que ñu instaurer la responsabilité politique. kon de xanaa boo demee assemblée dina bokk ci loi yi proposé incha allah Adja Binta Adja Binta waaw. Euh, ah, euh, livre bi euh, livre bi ñu ko liiree uh-huh. liiruñu ko sax on a lu les bonnes feuilles du livre. Uh-huh. comme ni nga ko waxee ñëwaat nga ci genèse euh, ressources naturelles du Sénégal qui ne date pas d'aujourd'hui. Mmh. 52 le commencé ano wax nga euh, le gaz de de Gadiaga. Mmh. avec Forteza et mais l'attraction du livre c'est toujours Petrotim Frank Timis indi na fi coow lu bari. opposition bi campagne na ko dox na si doxu ñaxtu annoncé nañu ay plainte ay contre plainte aboutirul ba léegi déggatuñu dara si plainte yooyu. premier ministre def na fi conférence de presse apporter ses explications. def des menaces ne ku fi waxati ci pétrole bi te waxoo ci lu loo ci xam dinañ la yóbbu si yoon boobu ba léegi déggatuñu dara ngeen wax ko si. Mhm. tu as pour la postérité peut-être sa combat bii fan la lay mënee parce que opposition bi ci doon wax waxatu ci parce que xam naa amuñu argument yu valable. Mhm. Euh, premier ministre menacé na. président nee na dem leen ba planète Mars ngeen wax fa léegi bind nga sa livre combat bi fan lay yem fan la lay mënee. Aliou Sall démissionné na Petrotim euh, euh, cos euh, Franck Timis moom jaay na pratiquement ses ses ses parts à à Cosmos Énergie kon léegi débat bi amul benn clarté ba léegi ba léegi sa combat bi fan la la war a mën a yow. da ngay njëkk a lire livre bi. la gën a leeral ci lu bëri. dinaa ko dinaa ko lire. alors le combat du combat entre l'opposition et le pouvoir parce que le pétrole n'appartient ni à l'opposition ni au mooy li may wax toujours rek bu ñu réduire les débat tout n'est pas politique man politique wu ma pétrole dañoo bugg askan wi. mais opposition bi ko. te yow ngi woon ci biir combat dañoo bëgg c'est de bonne guerre. Mhm. c'est de bonne guerre parce que le premier rôle de l'opposition c'est d'exploiter les fautes du pouvoir donc loolu amul problème mhm. mais li ëpp solo de même que le, le, le pouvoir exploite les moindres erreurs de l'opposition mhm. mais li ëpp solo. mooy on a une ressource qui appartient à 14 millions de Sénégalais constitution bi bi ñu defee seen référendum article 25 2 dafa ne les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais ressource naturelle boobu ña ngi koy gérer ci noo xam ne wax naa ko ci livre bi mënoon nañu wax ci yeneen ak yeneen parce que yemul ci zircon baa ngi fi li xew sabu dalaa mi ngi fi géej gi ñuy piller mi ngi fi loolu yëpp c'est des ressources naturelles mm-hmm. mais ñun suñu rôle mooy fexe ba askan wi ubbi bëtam ci li xew ndax ñëpp amuñu la même maitrise de ces questions là suñu rôle c'est pas de faire du résultat c'est de mettre les moyens gis nga nit ku ne yonent sax yàlla da ko ne munoo yow yaay jubal ku la neex sa mission mooy da nga jottali message bi donc ñun newuñu fi pour dire que ñun ñooy régler problème mu pétrole mais li ñu xam parce que si dëkk bi la ñu dëkk suñu génnee ci mbedd mi on nous interpelle suñuy réseaux sociaux on nous interpelle vous la presse vous nous interpellez tous les jours la ñu wax ci pétrole bi ça bokku beaucoup aidé à ouvrir les yeux à beaucoup de Sénégalais ba ñu xam li xew ci pétrole bi mhm. ça bokku beaucoup également ba tey nguur gi commencé di dëgg ay frèm xam ni ñu ngi koy xool donc suñ ci yemoon foofu sax ñun ba léegi lañ ca war a def def nañ ko donc ne pensez pas que c'est des combats qu'on mène pour pour avoir un gain parce que looloo yàq Sénégal maintenant euh, am na aspect bu waa ji laaj sànq bu am solo mooy dafa laaj ci société yi mais société yi ñuy tudd yëpp Petrotim yemul ci Petrotim wax naa affaire euh, Ovidi Tender nga xam ne moom la ñu jox les deux blocs Casamance ak saalum deful un an mu jaay ko. te biñ ko koy jox ma nga kaso dañ ko condamné. noo munee traité lu toll ni suñu pétrole ña ngi koy traiteel ils sont pas réputé ils n'ont pas une bonne réputation en homme d'affaires. tëj nañ leen jàpp nañ leen nu ne jàpp nañu ci ba ci ay drogue seen société amuñu référence yi ba pare ñoom ñëpp ñu ngi domicilié ci ay paradis fiscaux. pour rawale rek bañ a fay lempo gi gis nga yooyu soxna si ku mu doyul ku mu doyul dara dootul a doy. mais combat day liggéey du am fin. du am fin parce que suñu ressource la xam nga loola yàq Sénégal mooy. xeex bi xeex a jeexagul ah. commencé gul sax waaye émission baa ngi bëgg a jeex. waaw commencé gul su jeex rek xamal ni commencé gul. ñoom kenn yónniwu leen kenn yónniwu leen et puis malheureusement livre bi euh, génne wuñu ko Sénégal euh, c'est vrai que ñun duñu consommer euh, li xale yi tuddee fake mm-hmm. wala pirate la ko ñoom Bouba Ndour tuddee duñu duñu consommer pirate alors naka la ñu mën a def quand même pour am livre parce que sànq ba tey yaa ngi ñuy conseiller quand même pour euh, ko euh, mais bëri ci ay journalistes yu la mere euh, ñooñu itam bëgg naa ci tënk rek mm-hmm. lan ngay tontu journalistes yi j'ai vu sur Facebook et tout ça réseaux sociaux yi ñuy commenter waaw balaa muy tontu loolu ci côté ci côté livre bi nii comme moom dafa bëgg mu mu leer waaw pour sénégalais yi comprendre voilà te moom mu bëgg a ak gars lan moo tax munul def lu tax mu mën débattre ak gars yi supposons mu porte leen plainte gars yi indi leen teg leen ñoom moom mu mën a leeral mbir mi porte nañu plainte mais question ah. question ah, ah, réponse rapide réponse rapide réponse xam nga soxna si dafa xaw a sax jaxase histoire bi parce que <laughs> i jaxasewul dara de kii de bokk de journaliste yi gën a xarañ fii Sénégal waaw waaw mais man xam nga journaliste c'est mes amis man du du ma ñuy journaliste yi di terroriser ami doñu <laughs> ci Facebook bi moom Oumy Régina Sambou ak yeneen journaliste euh, euh, naqarlu lool nag waaw euh, mais dinaa ci tontu mais li ma bëgg a wax rek mooy ku objectif ci débat bi ku ci objectif te objectivité baax na ci lépp li nga xam ni la peur est de l'autre côté parce que lu toll ni état ak moyens yi ñu yor su doon daaw la ñu menacé ne ku ci waxati ñu tëj la man daaw ba ren maa ngi ciy wax bind naa ci livre mhm. nee ñu porté nañu plainte bokk naa ci ñu porté plainte def na léegi sept mois mhm. jotaguma benn notification plainte gëw ma sax ni plainte bi am na mhm. donc la peur est de l'autre côté newul si ñun ndax li ñuy wax su nekkoon si ñoom peut-être heure bi def nañu ay procès wala leneen ak leneen mhm. waaye ku dem ba bind lu toll ni livre muy circuler ci àdduna bi yëpp def nga lu raw wax mhm. c'est pas pour la postérité c'est pour maintenant mhm. bul renvoyer libre bi fële fii lañ ko bind Sénégalais nañ ko liir te bu soobee yàlla parce que semaine bii euh, investiture yi ñu teewoon suba su ma delloo ñu ne ma encore ñi nga xaar man je prends responsabilité pour pour distribuer le livre. pour distribuer ko maa koy distribuer sama bopp ma xool ndax dañ may <laughs> envoyé commando. léegi <laughs> su boobaa su boobaa tooñ lay doon. déet du tooñ. Ah. parce que tamit euh, euh, lu mu lu ñu bindul ne interdit nañ ko rek c'est permis man amoo ci problème j'ai voulu respecter la procédure. Ah. comme réagir ñu. man dinaa mhm. distribuer livre bi. Euh, mi ngi circuler les gens lisent. Mhm. en tout cas gi gisaguma ci appréciation négative. voilà gisaguma ko. voilà alors li li li ñu wax ci journaliste yi nag. Mhm, ñaar laa ci wax ba ñett bu ci njëkk mooy euh, musuma wax loo xam ne dama généraliser journaliste yëpp parce que li ma gëm mooy foo dem mhm. lu baax nga fa lu tane nga fa lu bon nga fa mhm. fépp nag bu journaliste yi gëm ni nag lépp a fi baax mhm. muy benn ñaar euh, la presse journaliste yi dañu war a xam duñu catégorie exceptionnelle bu génn bu sorti di lu chaque jour presse titrée impôt et domaine l'administration la plus corrompue euh, magistrature ceci etc c'est des débats parce que c'est des secteurs publics la presse est un secteur public mhm. la fréquence appartient au peuple sénégalais on la ba ma terminer on concède la fréquence sur la base d'un cahier des charges mhm. boo xam ne ñëpp xam nañ ko donc service public de l'information moo am moo tax ñu mën leen subventionner ci suñu impôt ñun ñëpp donc chaque citoyen am na droit ne service public de l'information ni muy doxee am naa ci sama opinion et on exprime nos opinions livre bi wax naa ci presse jël naa sax ay ay déclaration yoo xam ne journaliste yi seen bopp ñoo bind j'ai fait que citer trois semaines invité nañ ma marche Synpics dama dem mais journalistes yi ñoo waxal seen bopp ñun ñëpp nga fa. donc c' est un secteur. qui a tous les problèmes comme tous les autres secteurs. et j'ai dit euh, livre bu mel ni su ñu amoon de bons journalistes d' investigation peut-être man dinaa tal leneen lu dul di ko bind. mais comme journalistes d' investigation son plus. Euh, info yi de aujourd'hui à l'argent et ñëpp xam nañ ñi fi ne woon ay journalistes d'investigation. dafa am ko ciblé wala. dafa am ko ciblé waxin la rek. non dafa am ko ci journaliste am na ñi fi ne woon di bind lu ne. te mm. tey mm. mu fi bindul ci jamono jamono Ablaye Wade. Mm. tey scandale tey la gën a bëri. moo tax keroog bi mu ne dégg ma gis ñu ne Latif Coulibaly se prononce sur le livre de Sonko ma ne d'abord malhonnêteté intellectuelle livre boo liirul noo ciy prononcé wu deuxièmement moom ñi ngi xaar prochain livre am na ko bind ci building administratif bi muy géré nga xam ne c'est un scandale mais bi ngay wax les journalistes sont inféodés au pouvoir de l'argent waxoo woon kenn da ngaa généralisé woon da nga xaar ba nit ñi def tollé nga def nga daal di rétracté woo comme ni nga ko tàmmee def soxna si généralisé nga wax ne Latif Coulibaly ragalu ma benn journaliste nga def critique facile nga def nit booy def accusation aussi grave da ngay indi ay preuves si li ngay wax dama ne corruption dans la presse am na comme nu mu amee impôt domaine ñun ñëpp xam nañ ko li ma wax je le maintiens intégralement parce que kenn du ma terroriser man il a de la corruption dans la presse il y a des journalistes inféodés à l'argent comme il y a des journalistes sérieux mais je le maintiens intact virgule génnewu yaa ngi a tudd tur de. donc mu ngi doog am solo lu am solo <laughs> uh-huh. parce que mm-hmm. c'est pas la première fois bi mu amee ñenn ñi ne boycotter le livre de Sonko. par mhm. <laughs> rapport la am ak loolu. <laughs> bon si les journalistes boycottent mon livre ça n'empêche pas que le livre soit vendu. voilà donc le livre sera disponible prochainement certainement euh, fii ci euh, Sénégal c'est aux éditions Fauve euh, mais pour le moment mën nañ ko am bu ñu demee France quand même. waaw c'est comme ñu ngi koy jaay bu baax en France macha allah. jeex na ñu ngi lay gërëm bu baax euh, bëggoon nañu toog ak yow ba fajar euh, mais defe naa temps bi euh, moo ñu ko dul permettre ban message ci tënk rek ngay jébbal sénégalais yi nga xamante ni sànq ba tey nag ñu ngi déglu sa ay propos te xam naa ni kenn ku ci ne am na loo conclure hmm. ci sa taxawaay tey ci émission bi. waa di gërëm d'abord invitation bi ak plateau bi. Hmm. c'est toujours. un plaisir d'échanger. Euh, di wax ni euh, ñun dañoo bëgg ñuy poser les débats. Mhm. sereinement ñu mhm. waxtaan. Mhm. Euh, ñëwuñu fi pour parce que les gens individuellement on les connaît pas man président Macky Sall xaw ma ko. gëm naa ni en tant ah, que nit mosu ñoo gisee mosu leen gisante ah, personnellement. télé koy gis télé la ma gis. président may na la bës de Euh, euh, euh, non mayu ma dara. <laughs> si si si parce que saa yoo ko tuddee rek ni réew muy waxtaane la. waaw non non non mais mais mais mais mais c' est pour dire que nous ne menons pas de combat personnel. heureusement man dama naan toujours ku ma dajal gëm naa ni su dee nit ak nit rek moo ma gën. Mm-hmm. Mm-hmm. mais nag li ñëpp bokk. Mm-hmm. te presse ci la bokk soxna si. li ñëpp bokk. dinañ ko waxtaane parce que noonu la ñuy tabaxee réew. dama bokk ci damaa bokkoon ci administration. toog naa ñu tiitre. DGID euh, administration corrompue je sais que je ne suis pas corrompu je ne me sens pas concerné mhm. te teewul su journaliste ñëwoon le lendemain soxla papier ma signal ko ko parce que mhm. c'est mon travail mhm. et c'est comme ça qu'on doit gérer en démocratie li ci des nag réew mi ñoo ko bokk euh, ki koy tabax du doon benn nit il faut ñu fexe ba dynamique am Mmh. mooy dynamique boo xam ne dañu war a gëm ni balaa balaa kenn ku ne di baax la rek. Mmh. réew mi dans sa globalité baax. voilà te ñu génn ci logique gu personnel. Mmh. kenn ku nekk ne man samay mbir su baaxee rek pare naa ci. su ñu eggee foofu dinañ tabax Sénégal parce que li fi am. ci ressource. ci potentiel. mais amul France. France amul pétrole amul gaz amul dara. li fi am amul Corée du Sud. te ñooñu tey ñoo ñuy may xaalis. développé yorin bu ñaaw rek mooy suñu problème. Mhm. mais suñ ko réglé woon. Mhm. dans dix ans vingt ans tubaab moo naan naka laay immigré Sénégal mais doon le contraire. donc su boobaa émergence day possible. développement la ñuy wax ñun émergence <laughs> dañ leen jaay notion boobu rek ñu koy kii xamuñu sax lu mu merci beaucoup Ousmane Sonko ñu ngi lay gërëm bu baax euh, bàyyi la nga euh, euh, daw bu ko defee def naa fi la yeeg ñoom seen oustaz yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax Thiam. merci beaucoup nga war a teel a xëy euh, su ma jumul pour waree fu Ramadan quatre heures du matin déjà déjà déjà ñu ngi lay gërëm bu baax oustaz merci beaucoup maa ngi kontaan man tamit ci jotaay bi bokk ak yéen jërëjëf jëriñu naa fi macha allah mhm. alhamdulilah mhm. jërëjëf waaw ah, kay kon euh, euh, bu ñu àggalee ci pàcc bu mujj bi euh, dañuy waxtaan tuuti ak Djiby Dramé laata ñuy tëj quartier général beeg équipe bi yëpp alors Djiby sànq am na internet bu laajte. ni Pape nga may ma rek benn yóbbante. waaw waaw ayca ayca ayca ndax samay mbokk dañ may woo toujours ma. na fexe ba wax Kouthia ni doo soose joolaa ah. donc ne ko pas Sonko. Sonko bee ko yóbbaale <laughs> waaw pas Sonko bi muy fecceloo. ne ko benn la nag ñoo bokk suñu Casamance mais. Eh. Euh, mbokk yi dañuy bugg tuye toujours ñu identifier leen ci loola. dégg nga joolaa bu baax. am na lu ma ciy faraatu nag. kasumaay kasumaay képp. boo demee loolu rek nga ci xam. déedéet dégg ci mais dégg naa joolaa mënul wax ceeb képp lay wax. <laughs> Euh, am na am na mooy olof mënu moo jolaay olof mënul wax évidemment voilà <laughs> donc yóbbante bi dina yegg ci euh, Kouthia Kouthia d'ailleurs sax euh, Sénégal yëpp a ngi koy réclamer ci quartier général xam naa ni loolu dinañu ko dox fileeg samedi incha allah comme ni mu ñu daan gunge daaw ci élection Amérique yi ren dina ñëw itam ci législative yeeg yeneen i surprise yoo xamante ni Kouthia mu ngi koy préparer téléspectateurs yi fileeg samedi ci quartier général Djiby Dramé sànq maa ngi lay maa ngi lay laaj Euh, ni euh, euh, internet bi wax na sànq ni kañ ngay dellu ci saal yu mag yi parce que yaa leen ko tàmmal <coughs> mën naa koo tontu fàtte xaju fi tëgg nga grand théâtre ba tàyyi waaye yow yaa bëgg tradition yow yaa bëgg li sénégalais yi moom moo tax souvent ngay wootee théâtre Sorano et que nuit du Bazin defe naa dafa am tradition fii ci Sénégal je n'ai rien à prouver euh, si sama liggéey muy euh, la musique ma ndenk mhm. ndax grand théâtre tëgg naa fa mhm. du benn du ñaar euh, du foofu xam nga sa public mhm. lu kon lu leen tàmmal aussi chaleur sa chaleur géew gi mooy grand grand la du bassin ñu bëri dañ ko dañ ko bëggee suraanoo imposé nañ ma ko Euh, depuis ma dem grand théâtre mhm. sama première fois ak sama deuxième fois mhm. troisième fois bi da ngay gis ku may woo Djiby Dramé ñu ne suñu sañoon mhm. nga yóbbu ñu Sorano te soo gisee Ngéwëy ñi lay déglu ak ñu lay sopp ak ñu lay fonk ñoo ñoo déplacé wu pour jàkkaar ak yow sinon alhamdulilah rabbil alamin man sax problème laay am sax su ma defee Sorano imagine toi que soo defee Sorano sa public du fa xaj sax du fa xaj xam nga si dara kon nag euh, moo tax it euh, même lii nii sax problème laa am. Mhm. Euh, le le 7 juillet bi may def sama treizième édition la nuit du bassin. le le 7 juillet. Mhm. problème bu ma am mooy est-ce que. Euh, sama public na xëcc Sorano même su ma ko defee grand théâtre sax la même chose la mhm, mhm. kon sant yàlla euh, Diallo Diéry sant yàlla alhamdulilah événement la boo xamante ni euh, di nga ci ànd ak télévision Futur Média am na itam ku laajte ci internet yi Marianne wax na ko sànq ni boo doon tànn duo ak mbalax maan yi xam naa dafa fàtte duo nga ay duo waaye boo duo waat kon di yoon di yoonaa nag di caakiri bi yóbbu nga ko ba cercle d'hiver ak ah, Youssou waaw waaw Youssou Ndour mhm. macha allah alhamdulilah caakiri janjiri ma janjiri ma ñaa janjiri caakiri ma allah boso caakiri ma caakiri eh, eh, eh, mhm. mhm. boobu cercle di si Paris di wax ne def naa duo yu bari si musique musicien yi ah Sénégal laa juddoo Tambacounda la oriental kon nag euh, soo gisee la musique mandenk ma promouvoir ko di ko imposer parce que loolu laa doon. Mhm. je dis je suis de soninké de père de bambara de mère. Mhm. kon nag lu nga doon soo ko bañee daa fekk ngeen cee ñaaw. métis voilà je suis donc le juillet uh-huh. na euh, Pape Cheikh Diallo neex na uh-huh. Bouba Ndour. voilà ouais. le 7 <laughs> juillet kon euh, la ñuy amal grande nuit du euh, bassin Alfie laaj. Mhm. man xam nga ci laay bëgg ñun ñaar. waaw parti yu kii daal daf may xaw a. yu ndox yi ci yu ndox yi laay bëgg. dama bëggoon xam ñoom ñaar seen couple pap ndax euh, maman chérie léelée léeg du taaj ndogom <laughs> daal di wëy ji pour ji bi ñëw lekk man yooyu bëgg naa koo xam mu feelu ko. waaw ndax yooyu du am kër ga. ndax ambiance bi moom macha allah couple bi harmonie bi euh, on aime bien ndax léegi léeg euh, kër ga léeg-léeg bi nga war a. jottali dara waaw ngeen wëyante ndax dina am. def ko comédie musicale daal ci biir waaw xam nga man dama ne. Hmm. man lu may daal daal leen dëgg-dëgg mooy sama couple ak maman chérie. Ah, waaw mooy euh, maman chérie d'abord lu muy wëyee jëkkëram. Hmm. man su ma woyee rek lu ma mer fu mu toll sama sama sama douleur yëpp dina wàcc. très su may taajee añ na ma wëyal. da wëyal. su su may su may su may su may su may joxee funte nañ joganaal na ma wëyal. waaw man daal su ma duggee kër ga macha na ma wëyal rek. <laughs> na. waaw kër ga ah, <laughs> <laughs> allah Pape. mu ngoog euh, léegi defe naa dañ lay bàyyi comme ça nga euh, tëj euh, quartier général bi. waaw jàllu ji tamit lu ma la wax rek mooy le 7 juillet incha allah rabbi la mhm. grande nuit du Bazin. Mhm. avec kii TFM. Mhm. comme d'habitude Euh, woo naa ñëpp. Euh, xam naa ni incha allah yeneen plateau yi ni ñuy gis Djiby Dramé Mama Chérie parce que la nuit du Bazin soo déggee la fête de la Korité rek. ñëpp ñu ngi xalaat la nuit du Bazin. Euh, di woote waat sama public fidèle yi. ñoo xam ne du ñu son du ñu taay. ñoo xam ne toujours la même personne du ñu changer ma ngi lay wax félicitation. Mhm. soo bi yàlla incha allah ñu ngi préparé la treizième édition de la nuit du Bazin incha allah. mu nga kon ñu ngi lay gërëm bu baax xam naa ni di nga ñu fee seet si waat euh, beneen yoon en attendant événement boobule euh, kon bu ñu waree le 7 juillet euh, ci la ñuy amal nuit du Bazin ca théâtre national Daniel Sorano Sodo Bousso xam naa mu ngi koy préparé ak sa xarit yëpp ndax guddi la gu ñëpp di xaar mm. et puis ñu ngi gërëm tamit yenn ci ay journalistes yu réagir depuis cinq par rapport ak waxtaan wi ñu seexoon ak Ousmane Sonko je rappelle encore livre bi disponible Sénégal mais nee na bu jot li mu jot yëpp ci certaine euh, ñu ko euh, euh, jaay wala mu jox ñu ko fii ci Sénégal mais en tout cas c'est un livre boo xamante ni mën nañu ko lire donc ñu ngi nuyu ko mel ni Pape Assane Seck Sénégal ñoo far merci de suivre et de regarder ak d'autres journalistes yoo xamante ni mën nañu bañ a tudd seen tour mais fierté la ñu am à chaque fois ñuy seetaan quartier général Marianne wala balaa Marianne Adja Binta Diallo ñu ngi lay gërëm bu baax merci ci disponibilité bi tey ci quartier général semaine prochaine itam yoo xamante ni ràññee nañu leen bu baax euh, ci wàllu politique. incha allah Pape Cheikh man mhm. bégte la laay am toujours bu ñu ma wooyee fii ci télévision Futur Média mhm. pour ma bokk fi ci ci liggéey bi mhm. ndax fii laa bokk ci suñuy njiit nga bokk d'ailleurs fii laa bokk euh, sotti la ak defti la uh-huh. kon bokk euh, bu ñu ma wooyee rek heure bu ñu ma wooyee rek pare naa amoon bégte bokk ak plateau bi samay rakk yi nga xamante ñoom ñëpp Uh-huh. baax la ci man bëgg ma. ak euh, Sonko aussi pour la première fois ma koy rencontré. Uh-huh. maa ngi loué sérénité <laughs> ma bëgg ko leeral ne kenn yónniwu ma dama posé question rek de façon euh, vraiment ah amul euh. benn lu nekk ci ginnaaw. dama uh-huh. xalaat rek laa wax. gërëm naa la aussi ci réponse yi nga xam ne apporté nga ko di loué aussi sa sérénité. di leen gërëm di wax à la prochaine. voilà c'est vrai qu'il a je pense qu'il a convaincu beaucoup de beaucoup par rapport ak ay gërëm bu baax rendez-vous ak yow ëllëg euh, ci guddi diggante météo bi da ngay tendance bijou ak internet yi. <laughs> Pape kon rendez-vous demain allah waaye ma gërëm sama benn yaay rek madame Karo mu ma may tissu bi maa koy sant di ko gërëm di gërëm également Daba Meng borom Dabis Création. Euh, numéro téléphone am nekk 77 785 49 75. gërëm tamit établissement Fallou Koll. voilà lanceuse de tendance entre Koll ak Diadem euh, c' est magnifique euh, je sais que ñuy muuru ci koor gi quand même dinañu ko dinañu ko dinañu ko appliquer merci Alfie. merci. merci Pape Cheikh euh, remercier la remercier ñi nga xamante ne Pape ñoo doon teewlu euh, jotaayu quartier général remercier ki nga xamante ne nag moo jaar ci jaune bi tey muy Faben xam nga ci mhm. accessoire euh, laa koy gën di tudd mais mhm. Faben Diop tey moo jaar ci solo bi mhm. jaar ci li nga xamante ne tam mooy accessoire yi mën ngeen ko woo ci 77 622 26 06 remercier onglerie des VIP ak sunu maman bi nga xam ne moo jaar ci musóor bi muy maman Fatim Sy merci beaucoup à la prochaine incha allah. voilà tonton Macky remercie Khady Gueye nee moo ko moo ko solal euh, heureusement pour nous ba gisuñu li la Khady Gueye Khady Gueye solal yow yamal ci ginnaaw rek merci beaucoup Maimouna Gueye Bambalo. <laughs> merci Pape Cheikh ma lay remercier ñi ma bokkaloon plateau bi. di remercier aussi invité yi nga xamante ni moom lañ dalaloon. Mhm. donc euh, maa ngi remercier euh, Zahra bien-être by Zahra. Mhm. elle est joignable au 77 326 30. 35 30 pour ma ah, la coiffure ah. ma chérie ah euh, di remercier ki nga xamante ni mooy Fallou styliste mu ngi nekk si deux voies Yoff yi merci mu ngi euh, en face euh, hôpital Maguilène Senghor moom ma defaral taille basse bu toog bi donc il est joignable au 77 943 euh, 943 60 13 72. voilà voilà donc ñu ngi lay gërëm merci beaucoup Maymouna Mamadou Ndiaye euh, gentleman célibataire merci. <laughs> <laughs> yaa ngi wax léegi dañu bëgg a dem Màkka. <laughs> ñu bëgg a dem Màkka yi jënd bëgg dem Màkka. ñun ñëpp man rek maay dem di ren. incha allah rabi de bëri. yow boo demee dañuy dem. yow xam nga foo tege sa tànk teg suñu tànk. ah bi lay xaar. voilà bu ñu dara. man moom journaliste yi amul problème bu dee animateurs yi dañuy dóor y' a pas de problème on assume nos responsabilités te xam naa ne bu ci kanamee moom. la. non non pétrole bi màkk la ëppee da ngay dem da il mu ngi ñëw donc il faut que ma xaritoog euh, waa total yi. boobu moom du lu baax. boobu du lu baax. <laughs> merci beaucoup Pape Cheikh merci beaucoup aux téléspectateurs merci wax nga ko léegi di remercier bu baax journaliste yi nga xam ne ñu ngi doon envoyé message vraiment di rafetlu émission bi kontaan nañu trop. Mhm. Mhm. donc di remercier aussi suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan partout dans le monde. voilà rendez-vous à samedi incha allah. incha allah merci beaucoup Khady Sy

44 39 43. mu ngoog bu leen fàtte festival salaam bi euh, le 5 la ñu koy euh, tàmbali sànq rek waxtaan nañ ci et puis euh, am na conférence bu mag boo xamante ni dañu koy amal ci ubbite gi ca université Cheikh Anta Diop boori midi 30 lay tàmbali ay borom xam-xam yu jógee université bu nekk Nord Caroline et puis tàggkat yeeg ñi nga xamante ni ñu ngi fekk baax ci ëttu këri diine yi nekk Sénégal yëpp dinañu bokk ci programme bi ñoom nag ñu ngi leen di dig daje kon le 5 ba le 17 juin euh, bu leen fàtte itam tele bu bees bi ñu ibbi euh, xam naa ni Ousmane Sonko dina ko seetaan ndax am na internet bu ma laaj sànq ni moom dafa naroog ibaadu mbaadu ibaadu ma ne ko déet dafa yiw rek euh, waaye dina seetaan tele bu bees bi di TFM religion man ngeen ko jàpp ci câble bi via sat loolu bokk na ci ñu bëggoon ngeen bàyyi ci xel Mamadou Ndoye Bane ñu ngi lay gërëm bu baax juste rajo bi itam bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel King FM Ousmane il foog ngay déglu parce que man maa ngi fa suba gi 10 heures 30 ba 14 heures euh, suba sax émission bi yow laa ko bëgg a ak livre bi <laughs> donc tous les matins euh, dinaa leen gunge ci King FM <laughs> déet sama xarit la moom nag moom par contre dama ko bëgg a defal mouvement falfalaat ah waaw kon jeex na <laughs> voilà mu ngoog donc King FM mm. euh, mën ngeen ko déglu ci 99 point 4 suba gi maa ngi fa lundi ba samedi 10h30 14h émission bi ñu ngi ko tuddee King Feeling oustaz ndax mën naa ko tuddee dàq koor boo ko tuddee loolu lay doon parce que day dàq koor moom koor gi du fi nekk. déet waxin la rek dàq koor rek dañuy dàq koor rek di wax. Euh, jongama yenn saa dafa jongama te garde koor waxin la rek waxin la rek du caagin ni lool laa gëm waaye ma tuddee ko dàq koor rek. ma tuddee ko dàq koor rek. <laughs> Ndoye Bane merci. ñu ngi lay gërëm yow itam bu baax ci disponibilité bi. ñu ñii mhm. mais euh, saf na de saf na de. Ah. man maa ngi jox rendez-vous ñëpp demee demee matin xalaas <laughs> na ñëpp teel a yeew. xalaas mooy yëngal affaire yi <laughs> sant di gërëm sama waa ji rek xam naa ni <laughs> maa moom moom neexoon na lool waaye sama sama mbokk la nag ndax bi may ñëw sama yaay dañ ma uh-huh. nanga nga moytu Ousmane Sonko uh-huh. wax ko lu ko kii ndax sa mbokk la doomi daara lay nuroo sax yéen yéen yéen bokk yaay bi ma ko uh-huh. wax pour laajee lool tamit de gis naa ni loolu la xamante wuñu woon tey la ñuy doog a gisante ñu ñaan rek yàlla na yoon a teggi sa loxo ci question yi ah? ba nga tegg man man question moom aw ma ci mbokk ay mbokk ngeen mais moo la dàq quand même voilà waaw waaw man moom sunu famille maa gën a ñaaw mais aw <laughs> man sunu famille maa ci a ñaaw mais bu ngi góor mari baan rek la nopp voilà mari sama jabar loolu <laughs> te ñun ñaar rek la nopp benn copain booba moo ma sol lii c'est magnifique papino c'est très joli papino création xaritu gars sama sama xarit la moom woo xaritu Carlou D xaritu Omar Pène xaritu Pape Cheikh xaritu Bouba Ndour moom suñu xarit la papino création voilà te te mosul defar yére buuba man ah. defaraloon na ma ay yére ah, yaa yaa trente-cinq ans xaritoo voilà donc Papino ñu koy gërëm bu ah. baax man comme damaa jëlante ak bàcc jum kay fa euh, voilà donc yi may mu ngi tudd mu ngi tudd Kiba ay euh, bu ko defee sunu euh, ngeen duufal seen i bët ci yi nga xamante ni koor la ak korité bàcc jum donc kay fa marque baa ngi nekk 30 rue de Thionk Dakar site web bi parce que ñun dañoo am site web on n'est pas comme vous que des de téléphone téléphone euh, www.keifawood.com et puis on est sur Instagram sur Facebook euh, petit Snapchat euh, numéro téléphone bi di faites vos commandes mais bëccëg bi la ñuy ibbi pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg ci kibaay yi donc merci à toute l'équipe de production dirigée par Tonton Mac gërëm tamit Bouba Ndour mi nga xamante ni mooy produire quartier général suba daañu ñëwaat ak yeneen i gan bàyyi Jibi Dramé ak ma chérie euh, ñu tëj euh, émission bi euh, gërëm ñoom yaw Gervais petit bu efat fàttewuñu Mbay Diouf bu Penda Mbay balaa mu may mere Xaadim sama mbokk taalibe la Dudu Saw yow it ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm tamit Khadija ak maman Henriette jàllo Diallo ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu maquillage Serigne Toog Toog mu Serigne Fallou moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax fàttewuñu Baye Thiam le grand ingénieur de son gërëm tamit Ibro Sow euh, ci jàppandalam moom mooy euh, monter euh, lépp loo xamante ni ñu ngi koy togg ci quartier général bi donc Ibro mention spéciale à trois gërëm tamit Ibro Ibro ci kaw tonton Mag astafurla Tunkara plutôt la bëggoon wax promotion du doy donc ñu ngi gërëm bu baax Tunkara donc Tunkara ci kaw tonton Mag ci suuf te Kouthia nee na Euh, euh, ci euh, suuf baaxul ci kaw la yànjee tonton mag ki ma di nañu gërëm itam suñu jabar yi ñuy bàyyi ci suñuy kër ndax gàcc nga alama ñoom ñi amagul jabar nag classe boobu nduur gi ñook liir yu delloo yam <laughs> merci euh, Yao Gervais ça c'est le caméraman euh, de la nouvelle chaîne France Info euh, quartier général suba merci grâce à vous QG mooy meilleur talk show télé fii ci Sénégal Djiby Dramé ak Maman Chérie debout ala sanuma mama ala sanuma ala kañinde ala sanuma yow fana ne ami jawara ba sago jawara la dabangile mamare isaka jawara la foronto ñawule mbori bori samba ibrahima jawara mamare mama shiri alla ba sago dege madamu cheikh kante ami jawara diggante lari la ah mami mi malo iko mi kante mogo meme jaliso iko mi kante nina ko mi kante maramu shiki kante ila jali manyani abada bada, iduna jalima kungo bada bada ah ami jawara bama gila re ami jawara ala debi jalilu so abi jalilu woni woni nitara ami jawara gaso bunyani karama alugma chama chama ni mani jalilu ma ami agara jali le alamina jali mi mana jali sontana amba barikada yere isaga jawara mare ami ijawara cɛba jɔn y'i ta sunani farida la seki kante naa mu julli ceeb ku mu mën ni ikulela mɔgɔ min ma le jawara bari mama n'an bɔra nun fɔlɔ ma don ayida kulubali madamu yusu ma jigin don madamu buban don madamu bɔnɛ don madamu kabin don njaga duuru la seri birane duuru jankolo mamari ayida kulubali ali kulubali de ibrahima kulubali de fatu kamara mamari ye ala sonuma mama kule aisata kunema aisata soro surunji me aisata li torodo kabiri sukelu kera kelwe kawe aishata likange torodo madamu chernoli jale sawari jama jama me aishata libolo sutura fini jama jama mi bolo ibadi mama ma konga pare ni aishata li barikada mi barika bila mogo jumene tamaro seidi doomu ndey Fatou Seydi madamu Diallo Dawda Diallo la chéri wele la tamaro Seydi mama chéra wele Idrissa Seydi la nan kamane duwa jabi mama chéra tolo bi la namu doomu ndey Dior doomu ndey tamaro Seydi Fatou Seydi olu de be jolilu so u be jololu woni woni da de be ngana lu caya jaga jaga ngana mangana mani ngana mama namboro non falama do ambejatigi luwele le 7 juillet ni ala y'a yira n na Tambacounda jatigi Mali jatigi lu Faransi jatigi lu Amérique jatigi lu Mama Chérie ni Jali Jibi rendez-vous le 7 ni ala faralan kan an bɛna sumu sigi Koni du Bazin ala le